النبي الفرس العدنان سبقت غيري إلى الجنان مع النبي القرش العدنان يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يقتدر أجابني الرحمن قبل الخلق سبعين ألف سنة بالحق يقول لي كن فيكون ما أريد وليس ينحوني الشيطان المريد درجتي عند الإله ترتفع وإنني بلا حساب أنتفع درجة كوني خديم المنتقى وبي يباهي حزبه ذو التقى أكرمني بالصلوات الخمس ورمضان حاميا عن رمس أكرمني بالصلوات الخمس ورمضان حاميا عن رمس أكرمني بسره المخفي من قاد خطي إلى الكرسي قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى كتابتي فاقت شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية قصائدي هاجت قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربي إذا كتبته اهتز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبته اهتز عرش ربنا واستبحت جند العزيز في البناء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Serigne Serigne Fallou mu ne ñu leen di nuyu ci turu Serigne Mouhamadou Bakar mi sunu Serigne di sunu kilifa di sunu njiit ci yoonu murit suñu borom teg ko ci suñu borom teg ko ci ci kanam mbooloo murit mi ci kanam mbooloo murit mi mu wut fi Sëriñ Tuubaa mu wut fi Sëriñ Tuubaa jamono yii fekkoon nit nag fekkoon nit nag suñu borom defoon ko suñu borom defoon ko mooy njiital lislaam lu mat muy njiit lu lislaam lu mag luy dimbali waa lislaam luy dimbali waa lislaam te di leen ca gindi te di leen ca gindi ginnaaw bu loolu wéyee nee na ginnaaw bi loolu wéyee. ñu ngi nuyu am Amsatou ñii. Serigne bi nee na ñu ngi nuyu Serigne ñii. ak jigéenam bii nga xam ne soxna Boussa Bally Jaaratullaahi Maryamu. ak jigéenam bii di soxna Boussa Bally ci liggéey bii nga xam ne. ci liggéey bii nga xam ne. ànd nañ ko. ànd nañ ko. di ko jaamoo yàlla. di ko jaamoo yàlla. di ko bëggee rasuulullaahi. di ko bëggee rasuulullaahi. liggéeyal la di ko liggéeyal Serigne ci maamu Soxna Jaara di ko liggéeyal Serigne Touba ci maamu Soxna Jaara ci seen maamu Soxna Jaara ci seen maamu Soxna Jaara di sant mbooloo mépp sëñ bi nee na sant mbooloo mépp sëñ rafet na lool nee na taxawaay bi rafet na lool mat na lool mat ndax boole ngeen seen jëmm ndax boole ngeen seen jëmm am ak li ngeen am ak seen waxtu ak seen waxtu. teewe ko ci bis bi. lépp teewe ko ci bis bi. loolu mooy ñu ci sant bu baax a baax. sëriñ bi nee na loolu ñu ngi ci sant bu baax a baax. ginnaaw bu loolu wéyee. nee na ginnaaw bu loolu wéyee. ñu ngi leen di seeral ak cantam itam. sëriñ bi nee na mi ngi leen di seeral ak cantam itam. soxna si nga xam ne. ci soxna si nga xam ne. mooy soxna Baali Jaaru Billaahi Mariam. mooy soxna Baali Jaaru Billaahi Mariam. ah ci ndimbalal. kilifaam yu góor yi bu seen am yi di sëriñ am sut ak ñu mu ci liggéeyam bi nga xam ne ci liggéeyam bi nga xam ne sëriñ Mountakha nee na sëriñ Mountakha nee na liggéey bi ci jëmmam ji la ko tàmbalee liggéey bi de ci jëmmam ji la ko tàmbalee teg ci njabootam teg ci njabootam teg ci alalam fenn fu ne fenn fu ca nekk comme fu war a taxawee fa mu fa war a taxawee. ak na mu fa war a taxawee. ak na mu fa war a taxawee. rafetal na ko mot sëkk. rafetal na ko mot sëkk. kon ñu leen koy seereel. Serigne Sow nee na Serigne Moussa nee na ñu leen seereel loolu. doolee sant Serigne am sëtu mi. nee na mi ngi doolee sant Serigne am sëtu mi. ci taxawaayam bii mu taxaw. ci taxawaayam bii mu taxaw. te ànd ci ak mbooloom taalibe yi. te ànd ci ak mbooloom taalibe yi. di leen ci soññ. di leen ci soññ. di leen ci gindi. di leen ci gindi. kon nag. waaw kon nag. ñaan dara ji Serigne Touba. ñaan ci dara ji Serigne Touba. ñu fi teew. ñu fi teew. ak ñu yéenee teew. ak ñu yéenee teew. ak ñu fi teewal. ak ñu fi teewal. ak ñu yéenee teewal. ak ñu yéenee teewal. yëpp ñaan suñu borom boo leen nangul seen yëngu. ñaan ñaan ñëpp suñu borom boo leen nangul suñu yëngu. te doon ñoo dimbali bu baax. te doon ñoo dimbali bu baax. ci jëf lu baax. ci jëf lu baax. doon ñoo dindi bu baax. loolu noo gindi bu baax. te nan koy defee. te nan koy defee jërëjëf.